suñu partenaire yëpp ah ñi ñu àndal ci yeewu leen bi ñi ñuy ngee ay nit yu baax ndeysaan euh, labu gaz maam jaar ak bu sakkan bi nga xamante ni barki dem bi ñu koy mayee fii ci plateau bi Buse Ndiaye da diri. waaw da koo diri. maa njëkk a diri de mhm. man rek ñu koy toggee jeexagul. Eh, du gaaw a jeex bi jeex na de. je te jure ah. kii ah, amagoo gaz amagoo gaz waaw dama jëndi mu ngi jaay ci boutique et puis c'est pas cher <laughs>

loolu euh, euh, jël meew bi xooyal ko mën nga am ndekki bu riche ba noppi itam bëri sofia bi mooy bër bu bëri vitamine euh, voilà donc sofia tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax on parle tout de suite sport Alphie kenn laaju la yeewu sport comme chaque lundi dañ ci àndandoo ak Mamadou njaay Ndiaye nag tàggat yaram grâce dañ ci comprendre lu bëri bëri bëri bëri bëri te am solo Ligue 1 ak neuvième journée bi la ñuy njëkkee ci week bi la woon Ndiambour bu Louga toujours leader waaw Ndiambour gannaaw bu ma la gërëmee yow mi may may jabar léegi bu yàggul dara. njàmbaar du liggéey comme ni ñu koy waxee moo dirigé ba léegi moo jiitu. ci championnat takk si kay naa waaw am na <laughs> yónni na ma sa kër papa ak sa kër yaay. waaye kooku restaurant am rek sa salaire la. <laughs> ñëwaguma ci kuusu doomam ak meewu doomam. waay bul yàgg foofu yëpp ñun. yaa yaa ci yaa ci dugg yaa ci dugg man naka jekk noppi naa. man noppi naa man waxuma ci. yow yaa ci dugg kooku restaurant am rek sa salaire la. kuusu kuusu meewam nag. waa xanaa ñu dem meew ci ci sa couche couche beeg meew bi ñu dem sa miraasu bàyyi ba. oui ma man maa koy jox moom. yow yaa koy jox jaral na la ko. moom jaral na la ko ah kon yow la. ah man la déclaration. yow kon yëgoo woon nit ñi ñi. ah waaw man man. oui ah, ñu dem ci Ligue 1 bi neuvième journée week-end bi. Ndiambour ba tey mooy mooy leader. waaw Ndiambour de Louga Pape Cheikh mooy mooy leader ci. neuf neuvième journée bi nga xamante ne amal nañ ko ci week-end bi. gannaaw tamit jaraaf bi nga xamante ni ndoxaat bu bees. <laughs> jaraaf bi nga xamante ni daal dinay am victoire bu am solo eh, dafa bifirke waxati njàmbur leader. Eh, jaraaf bi nga xamante ni dafa am ndam bu am solo ci digganteem stade stade de Mbour 1 but à 0. tamit daal di daan eh, ki fi nekkoon champion daaw waa waa Douane daal di koy daan 1 but ñu dem ci résumé championnat bi ak Pafara ñu ngi te ñëw. joueur jaraaf yi di kontaan di jubilé. Pape si Diallo nag dugal bii bi nga xam ne moo tax ñu am ñetti poñ bi ci jongante bi ndam li nu mel nag lépp mu ngi jóge ci banc bi gannaaw bi nga xam ne Pape Siré dugg na ci boobu lay jongante daal di soppi xar kanamu match bi. confiance bi sax mosu fi jógee peut-être xëy na am na ñu amoon seen doute mais ñun xam nañu ne ñu ngi doon liggéey euh, sereinement di dem nank-nank vers li am solo encore une fois may gëmloo ni tey la ñuy doog jeexal premier tiers u bi mu dese ñu ñaari euh, tiers xam ñaari kon marathon la bu nga xam ne bii ku yàkkamti rek doo ko fekkee. Euh, c'est important nga am remplaçant yoo xam ni ay remplaçant yoo xam ne bu ñu duggee dañuy yëkkati niveau bi foofu mu nekkoon. mu nekk nag défaite bu métti ci waa mbuur yi. ndax nag benn moment boo xam ne rek seen defence bi xaw nañoo xoolee lu nu mel moo tax ñu ñàkk bi la jongante. dañu xalewee si ginnaawam parce que dafa am ay joueurs yu bëri yu gaañu tey ñett ñuy dooru jeu tey euh, communication bi amul ñu sàggane bal bi ñu néewal ko. Euh, parce que bu ñu sentiroon danger bi que déviation bi ku nekk taxaw war jël ki nga war a jël mënoon nañu dégager bal mu génn mais bon ñu ngi koy sant yàlla euh, def nañu lu ñu mën xale yi jéem nañu tey euh, def naa ne ñi doon seetaan seetaan nañu football Stade Mbour jéem na moment bi ñu yoree bal bi dugal ñu bi mais expérience su jaraaf joué na tey ba gagné na 1-0 ñu ngi leen koy sollicité. ndam li nag am solo lool ci verre blanc yu jaraaf yi tax ñu yëg nag ci wàllu classement bi te lu mel nag dina indi jeexi jaaxa bi nekkoon ci bopp joueur yi. donc njàmbur bu euh, Louga ak taxawaayam ça a marqué tout le monde. Mhm. Euh, ñu ngi ci gërëm bu baax euh, Pape Fara ñu ngi mi ñu defal reportage boobu. et puis ñu ñëw ci résultats yi ak classement bi. waaw résultats yi ak classement bi Pape Cheikh Junior daal di daan US Gorée 1 but à 0 Jambar Dóor Olympique daal di def match nul ak Olympique de Ngor 1 but partout Linguère Guédiawaye 0 but partout Mbour Petite Côte Casa Sport mu nekkoon match bu am solo Casa Sport daal di fay arraché nul bi 2 buts partout. classement bi ni la tëddee Njàmbur moo jiitu ak 16 points Mbour Petite Côte tegu ci 15 points Guédiawaye 14 points Casa Sport 14. 14 points nekk bas du tableau euh, Linguère ak NGB. week bi lañ doon amal coupe du maire de Pikine euh, ci diggante AS Pikine la woon ak ASC Jàppo. waaw 16 équipes ñoo participé ci boobu tournoi autorité Pikine waa nag ñoom nee nañu dañuy gën a ñoŋal Pikine ngir rek fexe ba AS Pikine daal di ñëwaat ci élite bi maanaam Ligue 1 bi euh, mu nekkoon match boo xamante ni tamit amoon na solo final boobu ñu daal di fay dem déglu Papa ñu ngi ñëw. Pikine nag moo fësee ne nekk bërëb bi nga xam ne footballkat yu bëri ci Sénégal fa la ñuy jóge li ko waral nag politique meeru ville bi ndax lu tollu fukk ak juróom benn ci ay ñoom la ñu dajale woon ngir nag fexe wàllu tàggat yaram am fa doole. Euh, li ñu ci bëgg nag moom mooy bëggal ndawu Pikine ànd ak ñoom euh, di relever le sport dans le mais au-delà de ça bëgg nañu tamit ndaw yi xam ne mën nañoo sport waaye mën nañoo utiliser sport bi pour mun a am yeneen buntu yu ñu mën a jaar pour mun a participer ci résolution problème mu bi Amadou si ñu ngi ciy waxtaanandoo te bu soobee yàlla ville bi dina ci ay financement de projet. li nu mel nag dina tax Pikine daal di nekk ci kanam ci wàllu football fii ci réew mi ak stade yi nga xam ne ñu ngi koy defaraat. Euh, le maire de Pikine moo fi ñëw délocaliser compétition bi muy la finale de la coupe du maire parce que Pikine amul fu ñu ko defee may lu lëkkaloo bi entre Pikine ak Guédiawaye di masawu waa Pikine yëpp ci ñàkk infrastructure bi mais di leen jox rendez-vous du yàgg pour que ñoom ñëpp ñu mën dellu Pikine bi nag ak AS Pikine moom moo ko dirigé ak ASC jàppoo ci teewaayu maire ville bu Guédiawaye ak yeneen maire yi nekk ci diwaanu banlieue bi loolu coupe du maire de Pikine la woon ASC jàppoo ak AS Pikine ñu jeexal ak basket ak ndorteelu euh, championnat national bi nga xam ne ni euh, yéen professionnels yi ne ngeen ne ngeen échec la. waaw dañ ko jàppoon ci week bi ñu génn xam nga fédération bu bees moo ñëw daal di samp ñu jàppoon ko ci week-end bi ñu génn waaye nag dañ ko daal di toxal ba àllarba maanaam mercredi dañ ko fas yéene démarrer ñu daal di dénk suñu micro kii di Amadine Sy journaliste moom nee na échec la parce que respecter calendrier bi lu solo ñu déglu Amadine Sy ci te ñëw. ba pare ñi yore basket bi tey mais si cadre de concertation des clubs lañ jógee cadre de concertation moo doon lan défendre intérêt club yi mais li ñuy def nii si aller à l'encontre des Medine si xam-xamam màcc ci lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ba noppi muy journaliste moom la doon déglu ci échec boobu la nga xam ne dañu ko seetlu ci ndorteelu euh, championnat national bu basket bi. loolu wax waaye waa fédération nee nañ euh, loolu du du ak échec parce que club yi ñoo ñoo koy demandé. Mhm. daal ñoom dañuy préparé defaraat bu baax seen licence. Mhm. moo tax euh, mu daal ñu daal koy reporté juste 72 mhm. waaye nee ren dinañ respecté sport à la une sport à dinañ ci ñëw yaatal bu baax ci basket bi ak démarrage championnat bi ak foot européen surtout ak CHAN bi nga xam ne démarré nañ tamit ci week-end bi. merci beaucoup Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax mën ngaa dem. <laughs> ndax nga ma déjà. non tu peux rester tu peux rester avec nous merci 9h50 8h59 mooy 9h une minute euh, ñu àndandoo ak yéen ca fajar ba tey ñu wanaat leen téléviseur bi nga xamee ni euh, moom laa bëgg a maye xool leen ko ngeen dufal seen i bët c'est un Smart TV euh, télé bi bi ma ko xaymaa daanaka ndekk yeggul 400 mais daanaka mille ci lay jar parce que Smart Smart la tonton mag sax nee na ma naa ci wàññi tuuti ci prix bi waaye loolu lay jar effectivement peut-être xamu leen njëgu prix njëgu njëgu. njëgu prix yi laa bëggoon wax de mais njëgu téléviseur bi mais c'est magnifique téléviseur bu ngeen bëggee ñu may leen ko appelé parce que fajar gi fii la ci télévision Futur Média yeewu leen euh, defe naa bu doon kër la yeewu leen mooy salon bi fii la ñuy dalalee téléspectateurs yi euh, di fi dalal itam lu ko fay lu fay télé bi. taalaat ko waay taalaat ko. talaat ko regardez télé bii la ñuy maye mu ngoog euh, mën ngeen koo am ci kaw ngeen wootee euh, ki ci wërsëgam nekk dañu ko koy baaxee numéro téléphone yaa ngi affiché wu ci suuf écran bi euh, songu leen ko même bu fekkee jotu leen ñu en direct bu ngeen xasee ba composé suñu ay numéro de téléphone mën na am seen wërsëg nekk ci ñu baaxee leen soit téléviseur bi wala ñu may leen ci enveloppe yu du ñi nga xam ne ni ñu ngi koy séddale 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 nous parlons tout de suite emploi comme tous les lundis matin jóg job dañ ci ànd ak Kya Aidara eh, yàlla baax na am na lu ma naqari kay mais mais mais et boy bi il est gonflé quoi Mamadou Ndiaye nii ci deux mois de télé mooy boo ci defoon 15 ans fu ñu jëm ci 2 mois de télé il ose woowee Kya naan ko Kya Aidara dara non moom moo ko ah, ah moo ne Ndiaye ok d'accord léegi léegi euh, ñu jàll ci CV yi nga xam ne jot nañu ko bëri ngeen ci di ñu yónnee ay CV euh, pour wut liggéey euh, tey nag dañuy jàllale rapidement CV wu Ama Sall ak bu Diédhiou Kya. Voilà, Pape Cheikh, nous euh, démarrer avec celui de Amassal, qui a eu de 2012 à 2013 une licence 3 en banque et institutions financières euh, à l'Institut de formation en administration et création d'entreprises. Pour ses expériences professionnelles en 2014, Il a effectué un stage de trois mois au niveau du service financier et comptable du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES. E et pour contacter M. Amassal, sera par mail à aminatassal000 euh, gmail.com. Nous avons également celui de Seynabou Djedjou qui a eu de 2012 à 2014 euh, son diplôme supérieur en technologie informatique DSTI à l'École supérieure polytechnique de Dakar. l'AESP pour ses expériences professionnelles de novembre 2014 à décembre 2014. elle a été agent technico-commercial à Wari Sénégal pour une opération de déploiement d'applications pour l'installation du certificat de sécurité et d'une application Open Wari sur tous les points Wari se trouvant à Dakar ainsi que le branding des stickers kit Wari et stickers bureau DJ. Du 7 janvier au 30 septembre 2015, elle a été agent commercial toujours à Wari Sénégal. Elle s'est chargée du recrutement donc euh, configuration des TPE, formation sur le mode de suivi clientèle. Du 23 juin au 22 août 2014, elle a effectué la direction Factory de Saint-LGSM outils de productivité dans le, dans le de la gestion de projets informatiques. Rédactrice donc euh, News newser et euh, membre de staff de sceneactu.com, site d'information et d'actualité informatique et de petites annonces. Pour contacter euh, Seynabou Diédhiou sera par mail à nabouoti@gmail.com. Mm -hmm. Voilà Pape Cheikh ñaari CV yi la ñu tànnoon espérant par rapport ak euh, seen expérience que dinañ leen contacter pour ñu mën a liggéey comme ni koy defee euh, saa su ne j'avais promis tout à l'heure de parler d'un jeune étudiant en communication qui s'appelle euh, euh monsieur euh, Youssef Boilem Youssef Boilem voilà merci Youssef Boilem donc qui a épaté euh, les médias euh, les les toutes les personnes qui sont euh, connectées Twitter Facebook et autres ce qu'il a fait aujourd'hui il a trouvé ce qu'on appelle c'est pour moi c'est c'est vraiment décalé ok d'accord voilà donc dafa dafa dafa benn benn jeune étudiant. ngeen baal ñu nag déggul bu baax ah. <laughs> benn jeune étudiant en communication. boo xam ne dafa dafa dafa impressionner tout le monde xam nga on dit tout le temps il faut être décalé de temps en temps bu fekkee ñëpp dañuy jaar nii jéemal xool beneen moyen mais bu positif nga jaar noonu pour mën a euh, impressionner ñi nga xamante ne ñoo am habitude di jot toujours ay lettres de motivation. li mu def mooy dafa dem utiliser des tweets d'inconnus boo demee sur Twitter boo defee sa sa nga bind par exemple bonjour euh, dafa dem ci tweet ci tweet euh, ñi nga xam ne xamu leen mu dem wër bonjour après le bonjour mu dem wër genre je m'appelle après mu def tweet def turam après mu def tweet lettre de motivation bi nga xam ne d'habitude moom la ñuy bind da ko dagg daggee ci tweetu jàmbur yi ah, def ko alors ça ça sa c'est une idée extraordinaire mm-hmm. bi nga xamante ne euh, tey ñi nga ñi dafa attirer attention média yi mm-hmm. donc média yi jëlaat ko waxtaan ci mm-hmm. euh, xam jàpp ni ko lu original a ngi noonu ba agence de com yi intéressé wu ci loolu euh, woo ko contacter ko aujourd'hui il a été recruté dans une agence de com pour dire Pape Cheikh que tout le temps li ñuy def tous les jours yónnee lettre de motivation recruteur yi min nañ ko mhm. c'est bien quelquefois de décaler mhm. décaler mais positivement mhm. ne veut pas dire par exemple euh, exemple bi nga joxee tout à l'heure ah ki jot euh, ki jël euh, CV ak lettre de motivation <laughs> te nga bañ a bi scotché ko nag scotché na ko ki di recruteur bi xam naa bu koy dajj day énervé ba bàyyi ko voilà donc. Eh euh, moom ñaari lettre la am donc benn bi lettre de motivation la. Mhm. avec les plis. Mhm. beneen bi photocopie pièce d'identité. di xamal ni que euh, on demande de décalé on demande d'innover on demande de de faire euh, autre chose peut-être qui peut impressionner euh, les les recruteurs donc réseaux sociaux yi aujourd'hui nekk nañ nekk nañ en mode ba nga xamante ne même sans quand tu passes par là tu as la chance d'être recruté mhm. et puis mu am yeneen exemple yoo xamante ne dañuy jël filmer seen bopp def ko ay vidéo CV di ko mhm. yónnee également ça peut marcher pour dire que tous les moyens sont bons pour décrocher un xam ne que marché bi marché de l'emploi xaw na serré mhm. donc euh, de surtout pas faire ça ça c'est déconseillé waaw ah, bañ ko bañ ko def ci mhm. mbuus mel ni mel ni ki bind lettre ni euh, booba tey buy bind pour demander emploi ci entreprise bi dañ koy wax ni poste bi vacant poste bi vacant la xaw ma <laughs> euh, bi ki ko am na ku ci nekk waaye kooku dee mu jaral ko mu dem ba ci dëj bi dem jëli certificat de waa ji bind lettre bi ne leen je confirme qu'il est mort j'ai même été à son enterrement oh je sais qu'il décédé ba pare joindre ci demande bi euh, certificat de décès waa ji bi actuellement occupé wuñ ko donc jël leen ma par lay torché pour dire que den yenn saa yi. ne ko xam naa ni waa ji dee na. jël leen ma. <laughs> ba pare joindre ci certificat de décès waa ji ngeen ma jël ci poste boobu comme ko jël moom bëgg na liggéey bi vraiment preuve de mais comme on dit chaque matin soxla bu teew moom ay nelaw faju ko donc loolu ay CV la yi ngeen euh, yu ngeen yónnee yéen di wut liggéey bu fekkee euh, contacté nañ leen bonne chance euh, pour suite bi merci beaucoup Kia pour Jóg Jóg on enchaîne tout de suite ak Bijou pour tukki tey nag dinañ dem ci dëkk yu bëri pour xool yi nga xamante ni moom moo fa xew on démarre peut-être la France Euh, tey attentat laay commencé. demal. Ouagadougou donc benn mauvaise nouvelle boo xamante ne ci euh, week bi la ñu ko am. entre mhm. vendredi et samedi donc ay terroristes dañu ñëw ci euh, benn restaurant boo xamante ne mi ngi tuddoon mi ngi tudd cappuccino fekk fa ay étranger commencé di leen tirer. Mhm. finalement ñu jël ay otage dugal leen ci benn hôtel boo xam ne soriwul foofu. hôtel mhm. Splendide finalement ñu woo. man mus naa dal hôtel boobu. daloon nga fi barki Serigne Touba mos naa dal foofu. miin na Burkina c'est possible. oui j'étais à Ouagadougou moi. ñu ne ñu ne hôtel boobu nag fréquenté oui oui oui. c'est beaucoup fréquenté par les étrangers donc hôtel boobu la ñu dem ciblé euh, ba finalement ils ont fait vingt neuf morts une trentaine de blessés euh, policiers yi doon euh, intervenir intervention bi de deux heures du matin à l'après-midi la ñu mujjee génnee ñetti terroristes yi nga xamante ne c'était ñoom ñoo amaloon attaque yooyu voilà et il paraît que bi ñu leen génnee ay xale lañ doon nirool. c'était limite des ados pas ay adultes yoo xamante ne mat nañ capable de faire ça capable de réfléchir de c'était presque des enfants ouais, et c'est malheureux après amul benn dëkk bu nekk à l'abri loolu moo metti quoi c'est ça qui fait peur parce que 2015 bi c'est vrai qu'à un moment donné ça avait explosé chaque semaine chaque vendredi presque nga dégg am na benn attentat benn dëkk et à un moment donné defoon nañ pose bañ foog ni arrêté nañ. mais finalement là il en et puis boo xalaatee ne yamuñu juste ci pays occidentaux yi. c'est ñu ngi ñëw Afrique bu baax fi et ñoom dañuy bind bu ñu paree li ma si gën a metti Twitter lañuy ñuy dem posté. nekk place boobu c'était une place safe. pour mhm. les étrangers. Mhm. c'est-à-dire que étrangers yi bu ñu fa demee dañuy nekk ci seen jàmm donc ñoom dañu leen ci bàyyi. Mhm. am nañu vidéo bi bu fekkee Pape Samba mën na ko teg ñu xool. vidéo euh, parce que lim bi dafa yokk 22 morts euh, ci attaque bi. am foofu on est léegi 29 la ah. c'est grave ça et puis tu sais Burkina Faso comme ñun euh, ñoom dañu commencé développer bu baax sax. benn avenue bu mag la ñu am côté boobu la hôtel bii nekk avenue boobu mu ngi tudd avenue Kwame Nkrumah c'est-à-dire li ko tàmbalee fii ba fële. Mhm. yëpp ay restaurant la ay hôtel ay bar c'est tellement moderne. c'est-à-dire boo demee boo demee avenue Kwame Nkrumah c'est comme si yaa ngi Champs-Élysées quoi. et euh, voilà malheureusement lii am fa après nit ñi dañuy gën a ragal. Mm-hmm. et puis euh, tweet bi ñu gën a énervé l'homme qui nous a énervé. c'est Manuel, le premier ministre euh, Manuel Valls, qui a tweeté uniquement pour nee na. non il a pas il a pas vraiment compris. Oui. moom comment ce qui se passe dans le monde. je pense mm-hmm. parce que moom tweet bi mu def moom dafa mel ni ñaari français la ñu rey ci 29 personnes yi mais on dirait que victime française yi kese la ñu waroon prendre en compte. parce que mm-hmm. boo dee xool mm-hmm. dafa envoyé benn tweet di di masawu euh, juste victim yu français et du coup sama téléphone bi bëggul génnee mm, photo bi donc koy war ci écran bi si si mais commentaires yi en mm, fait parce que voilà mm. nit yi dañ ko doon xas <laughs> eh, may ma jàmm de yow <laughs> ma lay fekk foofu léegi léegi eh, léegi mu def ay weer a nga commencé changé léegi bu yeboo waaw nga ne bi après am na ay commentaires yu bëri am na ah, ay ah. commentaires mais les gens qui lui est que les autres victimes sont insignifiantes voilà euh, Euh, yaa nga ku lui a demandé euh, France bi mu amee euh, attentat. monde bi yëpp ñoo ñu soutenir. Mhm. boo dee premier ministre booy soutenir da ngay soutenir ñëpp wala nga noppi. ba pare bindal ko mina bi. oui donc tout le monde l'a boo ngeen duggee Twitter am gis tweet yi commentaires yi wala même bu ngeen duggee internet di ngeen gis tweet yi commentaires yi nga xam ne moom la récolté parce qu'il a énervé tout le monde. c'est c'est à déplorer hein tweetu mm-hmm. Manuel Valls démb a fait le buzz contrairement à Justin Trudeau voilà mm-hmm. moom mi nga xamante ne dafa présenté condoléances euh, au mm-hmm. moom tamit mi ngi présenté ay condoléances aux victimes quand il y a eu les attentats en France ñëpp ànd ak ñoom et tout ça on n'a pas pensé qu'aux victimes françaises mais on a pensé à tout le monde c'est moche de faire un tri pour montrer carrément de quel côté on est comme si leur vie mm-hmm. était beaucoup plus importante en fait et le pire c'est que français yi nga xamante ne ñoo doon commentaire yëpp presque ay français ñoo gën a commentaire ñëpp dañ ko doon xas parce que d'accord après les avis sont partagés est-ce que ñun à chaque fois bu dara amee comme par exemple jël drapeau France def ko suñu profil euh, est-ce que ñoom dinañu jël drapeau Mali wala Burkina Faso waa France je suis Burkina ah. hier ça ça a ce qu'il y a des Français qui ont fait ça qui l'ont Burkina pour soutenir le Burkina Faso parce que je pense qu'actuellement le monde. Mhm. Il pour soutenir le Burkina. D'ailleurs mhm. des articles sont sortis par mhm. rapport à ce soutien face aux attentats yi ne Burkina am nañ parce que je pense que je suis Burkina ci seen Facebook yi. man damaa dégoûté démb bugguma woon. yow defoo je suis Burkina Ndiaye defoo je suis Burkina. nga ñu si Burkina. Euh, Adja la même je suis France def na je Burkina. d' da nga d' non man fàttewuma mais j'étais vraiment dégoûtée. a que tout le temps les gens soient là nga nekk benn innocent ñu fekk la sa place. bi ngay nekkee bi ngay añee bi ngay reeree mm. wala hôtel bi nga daal ray la. Mm-hmm. pour personne n'est a am solo mooy affaire yi ngi gën a ñëw. ngi ñi ngi ñi ngi doon bëgg a ñëw je pense mm-hmm. qu'il est temps qu'on renforce encore plus. la sécurité sécuritaire me rappelle à un moment donné ba mu dalee ba Bamako euh, dañu Sénégal gars yi ñu ngi doon boo duggee ci yenn restaurant yi wala yenn hôtel par exemple yu ma bëggul ñi mais da ngay gis lu ñu yow moom moo demee terroriste yi les états ñu ngi mu leen ko fuuy je pense que comme c'était un parce que ça me bu dee terroriste yaa ngi seetaan ñoom ñu ngi lay ci pour dire en fait c'est vrai Pape Cheikh ci xarañoon mais léegi da ngay gis taxi buy dugg wala oto buy dugg à la dañ koy xool mais eh, mais mais moi j'ai fan yi am na sécurité bi dañ ko ram ñu ngi ñu ngi fouillé oto yi mais temps yi dañu bàyyi woon seen loxo ba mu xoolaat beneen dëkk loolu que c'est difficile. wala ñu ba nekk ñu jox benn policier mu lay gunge wala benn. a nekk ah. <laughs> Burkina am na benn uh-huh. uh-huh. blogueur bu tuddoon bu tudd Bokari Ouedraogo. moom tamit euh, le 25 août 2015 uh-huh. lancé woon na alerte ci blogam. blogam mi ngi euh, na alerte ci sécurité. wax ni mooy xam na Burkina dafa amoon benn attaque bu fa amoon ñu rey fa ñaari soldats. ci mois mois d'août bi bi ñu génn 2015. moom lancé woon na alerte ci blogam daan ne sécurité bi wax autorité lancé autorité euh, lancé un appel aux autorités burkinabé di leen wax ni sécurité bi dafa am solo. di wax loolu nag moo tax bi affaire yi amee mu ne moom lii xamul. mais yow tamit pour plus de sécurité sa bouton bi. <laughs> bouton bi dara nekk am na ñoo xamante ni bu ñu deewee jarul autopsie ñoo rey seen bopp <laughs> ah pour plus de sécurité. mais depuis. pour plus de sécurité. pour plus de sécurité. en tout cas léegi nous restons en France vous qui mooy euh, yéen ñi war a dem France dama koy wax ci français sax. Mhm. je me débrouille bien. vous qui devez aller en France vous a une épidémie bu fa am. donc faites très attention épidémie de gastro-entérite vomissement lay àndal ak wàccu bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw. te ah, dafa mun a wàllaate c'est-à-dire que nit bu ko amee bu la nuyoo wala mu jege la sax da lay donc boo leen di dem France actuellement faites très attention ba pare français yi di ñëw nañ leen xoolaat bu baax comme ñun bu ñu amee épidémie bu ñu fa demee nit ñu xoolee. ñoom ñu ngi pompé fële dañ leen pompé fii. Euh, euh, xalaat ngeen ñu pompé leen bu ñu ñëw fii. ben oui sinon dañu leen daale feebar bi ils sont malades il y a une épidémie. on ne donne plus la main aux Français. jël jékki-jékki toog di la pompe ci biir avion bi te booy jógee foofu di ñëw kenn du la pompe nañ leen pompe balaa ñuy egg wóorul dañ ñuy wàll gas ko c'est pas sûr. ñun épidémie boobu buñ duree jàpp quand même buñ duree jàpp am na ñu ngi leen di masaw waaye bu ñuy dugg si nañ leen xool te ñun tamit bu ñuy dem nañu def attention jël vaccin sax nag. et je pense qu'on peut regarder ça pour comprendre. si si y a une vidéo y a une vidéo qui explique euh, en détail lan mooy épidémie gastro-entérite bi. Consultation en urgence pour cette patiente qui n'a pas pu aller travailler ce matin. Les symptômes vont parler d'eux-mêmes. J'ai commencé hier après-midi à avoir des maux de ventre, euh, des nausées. Cette nuit, je me suis levée plusieurs fois euh, pour aller vomir. Ah, on va le voir. Pas de doute, Après examen, cette patiente a bien été en contact avec le virus de la gastroentérite qui touche cette année davantage les adultes que les enfants. Les patients les plus jeunes sont d'ailleurs les plus à risque. parce qu'il faut l'intestin, lors, d'une gastroentérite virale, euh, la muqueuse intestinale est très très irritée, donc elle rejette. Donc l'enfant vomit, l'enfant la diarrhée, dès qu'on lui redonne à boire, il revomit et il finit par se déshydrater. Et Le seuil épidémique n'a pas encore été franchi dans de nombreuses régions. Un paramètre a peut-être fait évoluer le calendrier. Cette année, c'est vrai que c'est un peu décalé. La bronchiolite a été précoce, la grippe euh, ne semble pas être tout à fait là, euh, mais c'est vrai que la météo euh, ne nous aide pas à avoir des prévisions. Et pour éviter la gastro, bien sûr, un rappel de quelques conseils de bon sens. Dans une famille où il y a une gastroentérite, il faut faire attention de ne pas boire à la bouteille, pas boire dans le même verre, pas s'échanger des couverts. et que, bien entendu, la personne qui a la gastroentérite qui n'est pas bien ne fasse pas la cuisine pour tous les autres. Eh L'épidémie de gastroentérite se termine en général, vers fin février. Vous qui allez en France, protégez-vous, yéen ñi France, surtout les <laughs> Sénégalais qui sont là-bas, euh, faites très attention parce qu'il y a une épidémie, ñoom am nañu seen choléra, am seen Ebola, euh, ñoom ñoom waa France. Pendant que ñoom épidémie, ñun fii Afrique euh, célébré nañu jeexitalu Ebola bi. Fin au Ebola également donc euh, toute chaîne de transmission yi la ñu wax que jeex na parce qu'ils sont restés pendant 42 jours où ci ñetti dëkk yi nga xamante ne ñooy gën a am Ebola mhm. amuñu benn transmission et 42 jours c'est deux fois la période d'incubation c'est-à-dire virus bi dafa soxla 21 jours pour euh, dugg ci biir yaramu nit ba génnee feebar bi mhm. donc toog nañ deux fois période boobu amul benn nit bu feebar ñoom ñu célébrer officiellement fin wu fin wu Ebola mhm. en Afrique de l'Ouest mais lu ci métti rek mooy dañu wax que is au Libéria. Euh, ñoom OMS même bi ñu lancé annonce bi naka Ebola jeex na nee nañ ça veut seen liggéey jeex na ci zone yooyu. Mhm. il reste pour vraiment vérifier. Mhm. kenn feebaratul te même bu ñu gisee beneen cas dinañ ko faj ba mu wér parce que ci fin wu épidémie bi la ñu a dem actuellement. voilà donc yàlla na dem rek moom Ebola te may ñu jàmm comme célébrer nañu jeexitalam nañu ko gën a célébrer. même en Guinée euh, defoon nañu concert bu mag je pense que Youssou euh, pour ñu def concert pour jeex jeexal maintenant maintenant c'est kan la Céline Dion qui a perdu euh, malheureusement son mari jeudi son frère samedi ñoom ñaar ñëpp même feebar moo leen yóbbu cancer de la gorge boo xamante ne ils se sont battus pendant longtemps contre cette maladie moom ak René pourquoi nit ñi di parce que seen histoire c'est assez. Euh, touchante fantastique ba pare extraordinaire euh, début bi Céline Dion xamu ko woon René moo ko jël en tant que impresario defar ko ba mu nekk star planétaire bi mu nekk et finalement ils se sont mariés ensemble début bi nit ñi dañ doon wax seen différence d'âge mais tout le temps ils ont défendu leur amour mhm. di wax que ni ñoom seen mbëggeel après bu doon Sénégal fii ñu wax ci lu ne ah, ku am ay at yu bëri hmm? euh, takk la yow nga nekk xale kon xam naa coow li dina bëri di nga ci dégg di nga ci dégg ni intérêt tout lu nekk nga siy dégg mais man euh, li ma gën a neex mooy ñoom ñaar ñoom ñaar tout le temps dañ doon def ay témoignages par rapport à leur amour am nañu benn vidéo ci loolu. ndeysaan. chez nous Québec là quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un non déjà pas ça. la musique. on vire la musique. puis on lui dit je capote C'est tout ce qu'on a à dire. Tu sais, quand t'es en amour, t'as hâte de crier, mm -hmm. sur tous les toits des maisons. Mm -hmm. C'est dur à garder tout ça. Moi, j'étais dans la console euh, du studio et, euh, et je, pleurais en même temps qu'elle. Vous aviez convenu? Je pense que les gens, d'ailleurs, on les a revus depuis ce temps-là, <laughs> mais ils ont tous deviné euh, avoir ma réaction. Là, que... Quand t'aimes quelqu'un, quand tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire Je t'aime tellement là, que j'ai envie de marcher avec toi, main dans la main sur la rue, puis envoyer la main au monde qui me reconnaisse, puis dire Je suis tellement fière de marcher avec toi, je t'aime assez, j'ai comme l'impression que tu me complètes. Quand je suis avec toi, je me sens plus belle. It's not something that happened like Hey, I'm in love with you, I think. You know, it's something that it's like a flower. I planted the thing, it, and I watched it grow every, every day. And it didn't do like, Poop, here's the flower. No, every day I put water, hard work, looking at it, and it it grows. ndeysaan euh, Céline ñoom mi euh, ñàkk borom këram fi mu ne xam naa mu ngi koy di ca Las Vegas. fi ñuy jotoon a dëkk ñoom ñaar. Euh, voilà comme mais yi da dem le 22. pour plusieurs raisons. je n'irai pas pourquoi doo dem quoi. dama bëri programme. j'ai des j'ai des intime. oui mais bon du ma du ma dem mais leen su ma gisee Céline Dion ni muy waxee ci euh, jëkkëram gi euh, des fois je me dis pourquoi ñun Sénégal du ñu fesal suñu ay mbëggeel. si parler des gens qu'on aime des fois dañu koy denc ba mu jox ñu ay méttiitu biir. <laughs> oui am euh, nañu surtout chez nos stars ngay euh, ngay dégg ku fesal euh, ni voilà sama des fois da ngay rus a wax sax sa jabar je t'aime mm-hmm. c'est vrai de man xam nga noonu dañ koy rus dañ koy rus bon je je parle pas de vous yéen ay xale ngeen ay xale xale jamono ngeen mais mm-hmm. mbëggeel bi quoi gis nga dañu koy fesal jafe fesal fii Sénégal je t'aime genre yooyu en ku ci wax mais parfois par ay gestes ngay gis par ay comportements par ay réflexes yu ki di am peut-être tu vois. fu añ bi toll yooyu rek ngay dégg. waaw dëgg yooyu góor ñi duñ ko fësal bu baax a baax. mais en fait parce que fii culture de. culture mooy toppatoo góor la ñu. soumission bi mooy sonal vous êtes amoureux vous prenez soin de vous mutuellement. bëgg naa la waaye dama la bëgg a wutal rakk pour mu lay jàppale ci kër jarul jarul pour lan la loolu. jarul jarul jarul jarul sonn ma sonn ma noonu lañ koy célébré de vraiment man dama laa nopp man yow laa bëgg mais xam nga sama sëriñ ma ko may eh? sama papa ma ko takkal. bëgguma sax dañ ma ko forcer. après 15 ans de mariage quoi. c'est vrai 15 ans le mariage duñ ko sax xaar léegi en tout cas on pense beaucoup à Céline qui nous fait beaucoup plaisir avec sa belle voix et ce qu'elle a décidé c'est de travailler pour survivre parce que xam na ni sans René ce sera très très dur donc elle a décidé de de se consacrer si liggéey bi de de am na concert yu ñu annulé actuellement mais elle va sortir deux albums benn en français benn en anglais pour se donner à fond sur le boulot mhm. ne pas xalaat euh, que nekkatu fi même si elle savait mhm. depuis quelque temps que il allait mourir jour à l'autre mhm. voilà et li ma ci gënoon touché mooy moom ci boppam moo koy joxal boppam lekk bi mu feebaree bàyyiwul kenn muy toppatoo jëkkëram vraiment c'est beau c'est beau la ñu wax ci sa maam ak lan Adja Geneviève ci sa maam waaw moom day saan day maamam day bàyyi mbirum défilé yeeg élection de Miss yi mhm. là elle a 83 ans elle arrête parce que mi ngi woon Miss France tout le temps na am ay xuloo ay xuloo ay affaire yoo xamante ne doonul woon d'accord surtout ak Miss yi doon posé nu donc finalement mu créé Miss Prestige mais bii mooy dernière écharpe bi nga xam ne moom la ñuy lay joxe ñu xool ko que je vais remettre. Celle qui va la recevoir ce soir, elle pourra la garder, la garder chez elle comme un trophée. Et puis, je suivrai tout ça de loin, bien sûr. Moi, ma nourriture, c'est le public. C'est ça, la vie. C'est ça qui me fait que, tant que je verrai les gens comme ça qui, Geneviève, etc., Geneviève et tout, le jour où on me dira, Parce qu'il y a des gens qui disent mais ça vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos, tout ça. J'ai dit le jour où on m'en demandera plus, je dirais Geneviève, rentre dans ta caisse. Le seul concours qui peut rester à l'heure actuelle. Euh, c'est Miss France. moom particularité mooy mbaxaneem yi muy sol boobu ba tey moom la ñu koy gisee boo xamul turam sax buñ la wanee photo bi nga xam ne maire bi ci chapeau bi la. xam nga li tax muy sol chapeau bi ku bëri histoire la. nee na jëkkëram moo ko ne woon sa bopp bi dafa tuuti del sol mbaxane. <laughs> voilà merci et on finit bu ñu jógee France dañuy dem Italie. Italie avec les migrants parce que xam nañ ne que actuellement migrants yi ils sont un peu partout que ce soit en Espagne en Italie pays européens yu bëri. Mm-hmm. ñuy dugg gaal gi di dem. donc tout le temps dafa am bët bu ñu leen xoolee cette fois-ci dans le domaine de la mode ils ont décidé de montrer les migrants autrement c'est-à-dire en mannequin qui ont défilé pour des grands couturiers euh, yoo xamante ne Italie la ñu nekk ñu xool image bi ñëwaat. Si je viens ici, c'est pour contacter des gens qui y vivent. Je voulais contacter des demandeurs d'asile et utiliser mon art pour raconter leur histoire et les placer dans un contexte plus humain, pour qu'ils ne soient pas juste vus comme des malheureux. Ce sont des gars qui portent des vêtements élégants, ils peuvent être vus. Si je croise dans la rue un type qui porte un costume, ma perception va être différente. Je ne juge pas, mais les gens tirent des on leur en laisse la chance, pourraient devenir des artisans, des producteurs pour des marques de mode. C'est pour ça qu'on a invité trois réfugiés à venir participer au défilé. Aujourd'hui, à la fin du défilé, nous lançons notre nouvelle collaboration avec l'IMOMO. Nous allons lancer un centre de formation pour les réfugiés et les migrants en Italie pour travailler dans l'industrie de la mode et leur accorder des micro pour qu'ils puissent rentrer chez eux et démarrer leur propre affaire dans le secteur. voilà mu ngoog loolu Italie la xewee ñu jël ay migrants di leen défileel euh, élément boobu ñu ngi ko déglu ci euh, français mais je pense que c'est très clair comme ni nga ko expliqué mm. euh, sànq avant ñu koy seetaan et puis suba parce que tey li nga def dafa gudd torop xam naa dañu koy dagg li nga bëggoon waxtaane sa yëf yu gudd yi suba di ñëwaat ci saag yi ñu xewal léegi saagu góor ñi waaw waaw loolu doo ci wax tey bàyyi ba ngi def débat un peu voilà bàyyi ba suba sa affaire bi waaw vraiment sa bi daa gudd torop tey bàyyil noonu rek <laughs> bàyyil bàyyil bàyyil ba suba comme ça nga nga àggali waaw voilà wasalaam merci beaucoup euh, naka la ko kii gis-gis daan defee RTS bee leeg inshallah war na gis-gis man gisatu ma ko ci télé bi moo doon def pari sportif xaw ma course course yi ci télé ci RTS je toujours man programme boobu daf ma neexoon de bee leeg incha allah outsider yi 12 22 30 45 cant ak ngërëm ñeel na leen bee leeg incha allah <laughs> waaye yow tamit bee leeg incha allah 9 h ñu ngi leen di ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi regardez encore téléviseur bi laa bëgg a maye c'est un TV purée mu ngi toll ci 970 000 ah fa la fa la fa la njëkk di toll. <laughs> ci suba ak léegi joxe naa fi ñaata prix. waaw egg 800. <laughs> télé bi regardez way prix bu ma wax baax na prix baa ngi toll ci 2 millions 500 téléviseur bi regardez télé bi actuellement ñu ngi koy jaayee 4 millions 550 alors bu ngeen bëggee dama leen koy may woote leen léegi ci numéro téléphone yi affiché wu ci écran bi professeur Songué ma regarde genre wee ak xam-xam bi may développé yëpp ngeen ma ko jox ma yóbbaale tey mais non jamais professeur jamais de la vie jamais ça c'est téléviseur des téléspectateurs on vous offre ce téléviseur en même temps am na ay enveloppe yoo xam ne dama ko ciy teg woote bi ñu tuddee savoir euh, ni altine bu jot. professeur ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay bu baax ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa euh, teewaay ci yeewu leen bi. Mm-hmm. Euh, nii altine bu jot alors tey nag dañoo bëgg a waxtaanee ci euh, kaddu ak mm-hmm. askan bi mm-hmm. parole ak société ndax réew mi léegi amul crise ci kaddu yu ñuy génne y a-t-il pas une crise de parole dans notre société professeur. waaw il y a bel une crise de la parole parce que boo ko seetloo déjà actualité bi. Mhm. Euh, li chef d'état wax dañu ko ciy rafetlu. mais mhm. lu ko wuutu. Uh-huh. coow li bari woon na lool. Mhm. ba finalement kenn xamatul ndax wax dañ koy jibal pour génne dëgg. wala wax dañ koy jibal pour feeñ wala wax dañ koy jibal pour nëbbatu. parce que ni ko nasaraan bi waxee rek wax moom euh, anam yu bari la on peut parler pour dire pas on peut parler pour ne pas dire. entre ce qu'on a voulu dire a à dire. et en tant que telle elle est au centre de la communication sociale. moo tax ñu war koo wodd moo tax ñu war a am anam yu ñu koy yëkkatee ba nga tax ne na mën a méngoog dëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. fi mu toll wax ji dafa bëri ku jot wax ku euh, xam wax ku xamul wax. après finalement on comprend plus kan moo war a wax. kan moo war a wax loolu c'est extrêmement important comme ni nga ko waxee Sénégal dafa mel ni tout le monde est expert et surtout expert en parole. dafa mel ni c'est un pays de maître a foisonnement du discours derrière ce foisonnement du discours là yow doo xam kan moo war a wax doo xam kan moo war a wax ba tax na finalement li muy jur rek mooy lëndëm ak brouillard. kan moo war a wax kon léegi professeur. kan moo war a wax mooy ki xam ki xam moo war a wax. ndax ki xam neex naa ràññee. waa ki xam neex naa wa euh, euh, neex naa ràññee parce que wax naa la sànq ne on peut parler pour ne pas dire on peut parler pour dire on pour faire semblant d'avoir dit alors qu'en réalité on a absolument rien dit donc ki xam a lan moo tax ñëpp waxandoo kon léegi ñëpp di wax rek nit ñi wax rek ñëpp di waxandoo ñun waa télé yi waa bind yi sax léegi dañuy wax léegi parce que dañ ne démocratie la ñëppay wax léegi Sénégal parce que dañ ne démocratie la te buñ ne démocratie xew waaw même bu xewul sax gars yi dafa mel ni wax la ñuy dundee. Hmm. parce que dañ nekk ci société boo xam ne c'est une civilisation de l'image et de la parole. Hmm. yow yaakaar nga ne boo waxul doo nekk en tant que tel. et finalement li muy jur mooy ñëppay waxandoo bu ñëpp waxandoo day mel ni am riir mais njàngale du fa am xam-xam du fa am. Hmm. te finalement ni ma la ko waxee pays bi le discours il foisonne mais les idées sont en régression ça veut dire que dafa mel ni affaire bi xëccoo bi ci xëccoo wax dong la mais wax ji àndul ak jëf wax ji àndul ak mébét wax ji àndul ak xalaat te wax joo xam ne nag amul xam bu ko ëmb waxi kese la société encore une fois dama la ko waxee c'est une société de la parole mais de la parole bavarde mm-hmm. c'est une société de la parole mais de la parole peu savante mm-hmm. c'est société de la parole mais de la parole mensongère mm-hmm. est-ce que liberté d'expression bi tubaab yi prôné comme nañu ko waxee woon keroog dafa am yoo xamante ni méngoowul ak suñu aada suñu ay gëm-gëm est-ce que loolu ba peut-être départ dans son principe wax sa xalaat mais Pape du ñëpp ñoo am xalaat du ñëpp ñoo war a wax ci rajo du ñëpp ñoo war a wax ci télé parce que en tant que tel ni ma la ko waxee wax dafay yeete wax dafay firi wax dafay gindi wax dafay joxoñ fi ñu ñu war a aw mais bu fekkee ñëppay waxandoo parce que wax moom mooy sa nekkin sa lépp daal di tënku rek ci wax finalement wax ji dootul amati benn njëriñ en tant que tel Ndiaye. waaw professeur dañu seetlu bu yàggu dara président de la république bi muy sànni xeer euh, journaliste yi loolu la wax. Mhm. dafa ne ñun mhm. ñi kàddu ñi warul mhm. ni ñi nga xamante ni ñoo war a wax ñu am xam-xam. dañu jàpp ne ñoo war a wax waxuñu. est ñeneen ñi tamit ñi nga xam ñoo warul wax ñooy ñëw au devant la scène. waaw loolu mu wax am na ñaari lecture yoo ci mën a def. benn lecture bi correspond na ak li nga wax léegi c'est vrai que débat public bi dafa xaw a pourquoi mu a yeneen réew yi bu ñu droit dañuy jël spécialiste droit mu wax ci bu ñu tàggat yaram dañuy jël spécialiste mu wax ci mais dans nos sociétés en tant que tel comme ni ma la ko waxee ñëpp waxandoo donc chef de l'État loolu muy dénoncer mooy foisonnement du discours délire verbaux yi nga xam ne ñoom ñoo xam ci bànqaas boobu ñu leen di laaj ñu mën caa wax mais bu fekkee da génn fii taxaw ci mbedd mi ku la njëkk a romb nga ne ko démocratie mais xamul sax moom mooy mais deuxième aspect li ñu ciy ragal bu jógee ci baatu président de la République day mel ni répression des libertés a nirool donc en tant que tel fekkee da ngaa ñëw ne gars yi li ñuy wax dafay bari ko defee yow nga mën a gouverner ci anam ni nga ko bëggee donc ñaari lecture a am mais dans le principe la mu wax public il s'est médiocrisé le débat public a baissé de niveau parce que encore une fois tout le monde parle et je dis encore une fois tout le monde n'a pas l'expertise la légitimité pour parler et pour parler en public est-ce qu'il y a possibilité ñu xam ndax kii moo war a wax wala kii warul wax. waaw mais Pape ci loolu loolu leer na. ci mën nañ koo xam parce que encore une fois boo tegee ñaar wala ñetti nit bu ñu waxee yow ci sa bopp xam nga ne kii la mu wax am na xam-xam bu ca nekk am na lu ñu ca mënoo jàngat ak ki nga wax dëgg yàlla moom day wax a doom nit ñi rek te amul njëriñ loolu c'est très clair c'est le na ñu mel ni man hmm. dañuy def ñuy def ay gestes wax fekk li ñuy wax amul njëriñ waaw loolu dëgg waaw dañuy wax ay xam nga waaw hmm. parce que vraiment hmm. il faut que et je vous dis. gis nga dans ce contexte dans ce pays. moi je vous que man. Pape Pape Pape beaucoup de ba du am garab sax boo ko dégloo. et jusqu' à présent sax du am ca phrase. c' moo tax may la am na ñoo xam ne wax ji mooy tax ñu nekk nee la dañ nekk ci société de di spectacle et de la parole. donc en tant que yow boo waxul rek doo mën a exister. am na ñoo xam ne boo leen effacé woon ci rajo yi nga effacé leen ci télé yi amul benn béréb boo xam ne ñu ngi fay yëngu wax ñu dégg leen. donc ils n'existent que par le biais des médias boo leen jëlee ci média amuñ fenn fu ñuy waxee ñaari nit wala ñett jox leen nopp loolu mooy dérive bi nga xam ne pratiquement moom moo dal suñu société yi voilà waaw mooy li wax parce que maa ko doon wax seen benn maa ngi ko doon wax seen benn naataango mu ne ma jox ma numéro euh, téléphone Jibi Jaxate le sociologue ñun ñoo jàngandoo nanga ma ne ko je l'aime bien il est très pertinent mm-hmm. sama doomu ndey la ñun ñoo jàngandoo mm-hmm. mais man un je refuse de venir parce que trop d'image l'image tu ma ne ko mais pourquoi Djibi Diakhaté je l'aime bien c'est mon frère ñoo jàngandoo mais fais un effort de recherche il y a de brillants sociologues tapis dans l'ombre yow en tant que journaliste yaa war euh, numéro songé passe numéro nangam passe numéro nangam alors que y a yoo xam ne xarañ nañ lool ci seen bantas mais pratiquement vous ne pas l'effort d'aller véritablement mais parfois professeur ñooñu dañuy bañ a wax ah ñoom ñooy bañ a wax en fait dañuy bëgg changer mhm. équilibré changé du chaque mm-hmm. jour même même sociologue la ñuy invité. du mm-hmm. chaque jour même kii la mm-hmm. mais parfois yaay dem ci koo xamante kenn xamu ko. mu wax xam-xamam. mais day bañ dañuy bañ mais. dañuy bañ bi ci lan la tënku. j'en ah. connais mais xam nga bañ bi ci lan la tënku. Ah. mu nga dépendre ca médium ba leen utiliser. Ah. deux mu nga dépendre yow ca émission ba nga koy utiliser. trois mu ngi dépendre ci yow sa profil intellectuel en tant que tel. am na koo xam ne boo ñëwee taxaw bu ko loo tey boo ñëwoon invité Souleymane Bachir Diagne man ma nekk koo xam ne xaw ma dara dara ci ko naan weer weeg naaj wi maanaam toi même bi koy interviewé moom xam ne tu n'as pas intellectuel pour mu dialoguer ak yow su ko defee ci njëkk ak teraanga mooy la noo dama amul jot dëgg la on finit avec on finit avec les mots professeur hmm. si je vous dis parole si vous me dites parole je dis elle est au service de l'être elle est ce qui manifeste mais également elle est ce qui peut dissimuler. société sénégalaise. boo mën man la une société de crise de la parole une société dans laquelle les expertises semblent se multiplier te dañuy fàtte ne plus on croit savoir moins on en sait en réalité. su la nee wax. soo ma ne wax man la xëy na wax ja neex a dégg rek mooy waxu mbëggee la en tant que tel parce que je crois que ce n'est que dans le domaine de l'amour que parole au moins elle est et elle a un ku ne langal ak sa waay jërëjëf professeur ku ne te déglu leen ma waaja Papis xanaa dugal ana waaja maa ngi waxoon mu dugal ma Lalo Keba Dramé xam naa xale moom la dugal au fait au départ après ça m'a fait bizarre nan nga tànnee woy bi ñu déglu ko tuuti <laughs> yokkal ko Lalo Keba

pourquoi Lalo Kéba Dramé parce que xam nga c'est un authentique créateur am na benn artiste boo xam ne sax jarul ma koy tudd il était un peu en panne d'inspiration ma ne ko mais déglul ñu mel ni Lalo Kéba Dramé parce que ñun c'était des créateurs ça veut dire que yuuxu bi doon doon masquer seen pauvreté seen capacité xam nga ay dañuy yuuxu rek pap mm. mais très souvent boo ko seetloo mm. mm. sa voix qui est la musique et en tant que telle sa voix elle est bibliothèque lañ rythme boo génne gars yi génn nañ ko seen kora instrument moo daan boo mën a utiliser def nañ ci kora bi loo xam ne ñoom defuñu ko ci waaye ba ma ko laajoon sax yaakaar na du bii boobu kora bi sànn la xaw ma ndax yaa ngi koy fàttale ko moom naan yaay jonga ma yaa teera nar neroon naa la biig bul ma jege kon nañ la gungee bii professeur ñu ngi lay gërëm bu baax waaw ce parole là qui est censée li ci des yëpp ay waxu kasaw kasaw. merci ce n'est que dans merci professeur ndeysaan ko bëgg a jëw en fait donc damay bàyyi ba mu génn studio bi merci professeur merci vraiment professeur tëjee ba bunt bi bu baax kii laa lo keebaan raam bi <laughs> wax leen rek entre bi ci suñu yoon lan la laalo Kéba dina nekk xalamam bi nga xam ne laalo dee na ca deeyu njëkkee lan la ah, te Wally Seck nekk fi Pape Diouf nekk fi wooy yu bees euh, beneen bi nu mu tuddati maalaw ñii kii wa kii ay yàqu tere nelaw ak yooyu noonu ci <laughs> yoon ah te maalaw ne nii kii est-ce que nit la professeur nañu may jàmm nag xam nga sénégalais yi dañuy jaye am nga xam-xam li ngay wax jàkkaarloo neex na ba mu léegi day indaale musique gu boppam. waaw professeur na arrêté. wala ba pare su ma génnee xam nga lu ma koy wax li nga teg dafa neex chaque matin day ñu may. waaye tegal ñu maalaw waay. ah. maalaw bi toj na dëkk bi de ñu ngi koy may law ba yëpp ndax dañoo am jom. Ah, nee teguma laalo Keba Dramé xanaa damaa dof professeur Songe rek doy na ci na yóbbaale ay woyam eh bu leen ko enregistré ci machine bi de jox leen ko fi mu ko def mu yóbbaale ko këram déglu ko ak soxnaam professeur Songe ñu ngi koy gërëm bu baax ci xam-xam bi nga xam ne daf koy partagé ak ñun euh, lundi bu jot ci yeewu leen ak vendredi ci guddi ci euh, jàkkaarloo regardez celui qui nous a qui nous a rejoint est-ce qu'on peut le regarder mais on ne le léegi li ma naqari mooy romb na ay siis yu bëri ne day toog ci diggante jaari xale yu jigéen yi loolu laa bëgg nga expliquer ñu d'abord maman pourquoi tu préfères t'asseoir dans le milieu de ces deux femmes. what is this. what's the problem. What is this in the mean? plateau. why not. non c'était because pourquoi. mais Papino dafa tuuti Papino xat na ci micro onde bi xat na fii Papino mën na toog fii kii pour place y a pas de problème il peut se mettre là. non fee moo gën a moo a xat que fii moo tax. kii xat na fii ça se voit nii à l'écran mais c'est fii moo gën a yaatu. ah pour yow <laughs> merci d'être là ce matin on est très content yaa ngi ànd ak euh, Papino Papino defe naa euh, ñu bëri xam nañ ko mais ñu ngi ko gën a découvrir ci euh, single bu bees bi nga xamante ni génne nga ko mais on te le soin nga nuyoo ak suñu xarit ci lay xaar depuis hier. waawaa waaw ba déjà nuyoo ak euh, mbokku téléspectateurs yi. di nuyu euh, Sénégalais ñi seetaan et puis ñi nekk à yëpp. et voilà di leen euh, tamit euh, souhaiter bonne année 2016. parce que jotu woon am occasion def ay ay plateau télé ñu ngi ah depuis 2016 daaw nga gëj ci télé yi. waaw gis nga maa <laughs> ah, <laughs> on est on est on est content quand même de de de te recevoir parce que bokk nga ci artistes yi nga xamante ni da danga ñuy euh, da ñun da nga ñuy sagal benn ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi koy def ñaar ci jom bi nga am parce que yàgg nga nekk artiste mais bi nga bi affaire affaire bi explosé defe naa yàggul et boobu ba tey à chaque fois da ngay génne loo xam ni euh, dafay particulier lan mooy secret Mao. Euh, est-ce qu'il y a un hmm. Après c'est des questions que je pose parce que j'ai pas préparé hein. <laughs> ngeen déggee ma ne artiste lan mooy sa secret rek xam leen ni préparé wu ma dara. en fait. yenn saa yi ma jàmb artiste ba ma foog ni mooy Michael Jackson. oui dama gis sa diggante ak sa fans yi daal. ah vraiment affaire bu ratax la quoi yaa sa fans yi qu'est-ce qui se passe lu sa secret def <laughs> naa ko Youssou Ndour sax ñëpp Youssou Ndiaye maanaam ma xam nga man c'est que liggéey rek quoi li nga xamee ni que <laughs> mën naa ko sa secret ba li ma laaj gëw ma ko de <laughs> gisoo pour que non vas-y je blague je blague c'est quoi ton secret. non non c'est ça. Ouais, je, suis déjà quelqu'un de passionné. Mm. parce que j'aime bien découvrir surtout ay univers j'aime bien. j'aime bien li may def j'aime bien liggéey bi pas forcément si sama musique mais j'aime bien musique ci donc euh, voilà ci nekk tous les jours moo tax lu muy gën bëriwul sax parce que je suis tout le temps dans son si sama studio sama waañ la daal fa laay toggee fa ngay toggee quoi voilà voilà et puis lu ñëw jàll sama xel ma ko mettre euh, en pratique voilà ok hmm. est-ce qu'on peut écouter euh, bi on peut on peut écouter la chanson Mao ak Papino c'est ça c'est un très beau titre man bi ma ko dégloo dama kontaan même si boobu ma fait genre tu n'as <laughs> on peut écouter man dama ko déglu yooxu quoi. ah mais dama bëgg nga get down ci sax. get down lan la. ah waaw baax na egg si. ñoom nag artistes yi da nga leen di invité ñu lay wax ay mots yu garaaw. regardez c'est très beau. Come on. smile, exceeding half the time. Yeah, yeah. Up up. No stress, get free, forget your plans. Everybody get down. On it, see. Excel, so soon you can go happy party. Even up my own outfit, do wanna easy. Good girl dance, so I miss fatty fatty. Left and right again, let's go night to get Get up, get down, you fetch it outside. sing a song. Everybody go with music, get down, down. you ready? Can you go? amul dama solo no no. dafa étéwee sax way bi dafa étéwee. c'est vrai hein ça donne envie de faire la fête ça donne envie de danser. et y a les couleurs vives aussi. Bah oui la plage. de. ak sabaru bi normalement tu sais les gens qui sortent des chansons là war nañu ñëw indi ko fii tester parce que bu ci ñuy commenter rek. ñun bu ñu valider rek valider ñii elle valide rek après c'est bon. wali wali dégg ngeen ko wali dinañ ko de. et eh, c'est très beau c'est très beau et daf ñuy fàttali ay woy ah, daf euh, ku leen dëgg nga wax nga wax sànq. waaw waaw man beneen woy la may fàttali am na benn woy bu muy déglu tout le temps ci xale yi bu dee baali xaw ma ni ñaari bong bong dërëm kii ñaari bong bong dërëm ñaari bong bong dërëm kii ni ngi ni ni ñaari bong bong dërëm voilà leen woy <laughs> temps bi gën a liggéey ci boîte boobu daan ko teg yii ñaari bong bong dërëm c'est eh, eh, lii neex na de si sorti depuis quand. ñaari bong bong dërëm yi fu mu jógee euh, ça fait combien de temps ça un mois. ça sorti. waaye doo ma ko Papino mi oui mais il faut que je discute avec lui d'abord Papino il ressemble à un Guinéen. Papino. oui man dama ko liggéeyaloon benn clip. ok il y a il y a quelques mois peut-être huit mois. bu tuddoon bul ñëwaat en fait. ok noonu la ñu xamante. et puis euh, j'ai beaucoup aimé sa sensibilité ak nu muy woy ak yooyu yëpp. ma proposé ko ñu def futur. mais moi quand je l'ai vu je pensais que c'était Hakim bu woy ratatati parce que dañu dañu niroo euh, nettaluñu sa histoire ak euh, ak Mao. oui comme lu mu wax rek benn clip la ma doon joobal. entre nous tu viens de Guinée. non non non non. ok d'accord non fii laa jógee. ok nationalité. <laughs> pardon. nationalité. Sénégalaise. 100 <laughs> pour cent si si. 100 la. Ouais, mais bam, bambara laa quoi. ah d'accord voilà <laughs> bon maaw ñi nga xamante comme lu mu koy wax euh, si sama clip bu ma doon ma doon def bu tudd bul ñëwaat moo ko réalisé. bon mu nekk un gars boo xamante ni euh, dañoo gisee rek bon yàlla mun naa ne yàlla moo ñu boole quoi. parce que c'est vraiment quelqu'un de bien et puis mu bëggoon coûte que coûte lancer ma coûte que coûte def dara pour euh, pour pour ma avancer bon. voilà quoi nit voilà léegi dafa am af rubrique bu ñu xewal diir la vérité <laughs> keroog kii la ñu am euh, euh, euh, détecteur de mensonge mhm. mais muy maaw mu yow lu ñu leen laaj bu fekkee du ay dëgg dama lay pomper eh, eh, eh, tu voilà mais balaa ñuy wax ci euh, vérité bi euh, balaa ñuy def ci wax ci question vérité ou pas si vous ne dites pas la vérité dama leen di pomper ah après ngeen am problème dootu leen dootu leen woyati hmm. léegi euh, Mao y a pas longtemps tu as été nominé ci prix RFI Musique c'est ça mais boobu ba tey yaa ngi continuer sa sa yoon quels sont les projets en dehors de woy bi nga def ak ak Papino waaw maa ngi préparé benn benn spectacle bu mag fee mhm. Institut français le 30 mhm. janvier mhm. donc ak ay invité yu bëri notamment ñi nekk ci sama album ak yeneen euh, invité euh, voilà yeneen invité yoo xam ne newuñu ci album bi Thialaling <laughs> moom ana janvier ah ana Thialaling kay non way boobu tam dafa neex de <laughs> est-ce que est-ce dire que da ngay génne beneen album bien sûr bii nii en fait morceau bu euh, maanaam euh, bokkul bokkul ci album bi yeneen jàpp yu ñu may def la noonu rek. ok euh, ok maa ngi préparé yeneen affaire incha allah. daa am question bu Alfie doon posé. oui ko. nee ñuy def ci clip bi. ah ok waaw surtout ki mujjee ñëw xaw a jaaxal ñëpp. ba kee pes ku góor ki. ba clip bi na a jeex c'est c'est quoi ça parle <laughs> waaw mais xam nga rek dañuy dañuy. préparé bopp bi xale jigéen ñi lu ñuy def ci clip bi lan mooy question bi xale jigéen ñi. waaw lu ñuy def ci clip bi. pour embellir ko xam nga fu jigéen neewul rek day day xaw a xajam quoi moo tax. ok fale ñu boole ci ay xale jigéen pour mu am. joie de vivre. pour mu am vie quoi. pour mu am vie am voilà loolu la jigéen loo ko loo ko boolewul rek. dafay ñaaw moom et puis et puis à chaque fois sa sa sa ay woy euh, dañ ciy sentir déconnance quoi dañ ciy sentir humour euh, dañ ciy sentir sentir loo xamante ni euh, voilà. tu as envie de danser quand tu écoutes la chanson voilà xam ni waa ji dafay kaf dafay faux dafay dafay rek quoi pourquoi ce style. on va on va dire je me prends pas au sérieux. voilà c'est ça pourquoi tu te prends pas au sérieux. parce que musique la aar la da ngay def lu li nga xam ne moom nga am envie joxe defuma ma jazz peut-être si c'était du jazz. Euh, di nga ko méttil. waaw di nga ko méttil def ay notes yoo xam ne dafa xóot ak yooyu yëpp xam nga. Mm. mais man boo xoolee même si sama écriture ak yooyu yëpp sama composition c'est des trucs très simples. c'est facile de travailler ak kenn koo xamante ni il se prend pas au sérieux day dem au feeling comme ni mu ko sentiree. voilà def ba intégré ci li muy def bon loolu je pense que c'est simple parce que boo ñëwee rek déjà da ngay da ngay da ngay nekk à l'aise da ngay genre quoi tu te voilà quoi da ngay da nekk à l'aise tu te lâches xam nga voilà quoi c'est te man tamit noonu laay jógee. noonu laay liggéey saa yu ñëwee studio ñu ñu ñu dégluwaat yeneen son yu bees ak yooyu yëpp amaate yeneen inspiration pour man c'est ça euh, même notes yi ngay dégg ci mbedd bi klaxon oto yeeg euh, maçon bi dóor ak yëpp yëpp daf lay inspiration loolu yëpp inspiration la eh mais Maaw yow xanaa dëkkoo woon Sénégal avant yow feneen nga dëkkoon xanaa <laughs> waa dëkkoon dëkkoon naa dëkkoon naa en France. ok pendant 12 ans mais ñibbisi naa depuis 4 ans. ah ok yow jabar tubaab nga am. aha. Ah. <laughs> <laughs> ma réfléchir attends waaw. ok d'accord. eh non mais c'est ça maintenant doomu métis nga am. ñaar. tu en as deux. ñaari doomu métier d'accord ok d'accord je pense que c'est très clair hein. pour ceux qui ceux qui voulaient savoir. pourquoi nga sol culotte bi ñëw ñëw ci yow la. <laughs> non euh, mais comme comme li ñu doon wax rek boobu man moom damay jug rek je suis à l'aise. inspiration artistique quoi ah voilà c'est ça. d'accord ko pompé waay c'est cool et j'ai envie que l'on écoute en attendant Mohamed Ndiaye di yegg si Thialaling c'est un très beau titre euh, qui a fait pratiquement le tour du monde grâce ak notre artiste euh, muy Mao lui c'est notre ami ah moi je pense que c'est la énième fois qu'il passe dans cette émission wala ci kër gi la ci kër gi la musique nga bokk en fait parce que nous on aime les vrais artistes je pense que Thiala Ling au lieu ñu teg euh, clip bi on peut mettre ça juste permettre à Mouhamed Ndiaye de yegg plateau bi mettez ma si tu ne mets pas je te pompe. venez merci c'est un très beau titre ak Mao qui est venu nous voir ce matin Mohamed Ndiaye nous a rejoint euh, pour de presse bi sa o oh, bi dang na de nga <laughs> mel ni ku sa suñu ku muy décidément yow da nga si moom mii mooy copier parce que fajar bi la ñuy seetaan jël même yi faut arrêter. barki Serigne Touba Mohamed Ndiaye non mais eh Mohamed je te jure balaa ngay dem ci revue de presse bi comme à chaque fois tu nous aides euh, pour yenn ci question yu gën <laughs> a. non waaw ah, kaay na xool kaay kaay. dala fan sincèrement fomp ko. wala fomp bi nag. non. alors man man damaa damaa tull teg kii. non non damaa tull non. waaw am na différence ba. amul benn différence non en fait. Mohamed Niang faut arrêter ce que tu fais. man nga xamul problème bu <laughs> ne ko da ngay jàll saa. il veut juste nous le gars mu ñëw nii. waaw ji sa dënd bi nooxul ko jarul war a ci télé. bu <laughs> Ah, et Bouba amal ko chemise je te jure. non mais il faut qu'il de chocolat. Alphie amal ko sa robe li nga teg ci kaw. non même dafa xew. amal ko li nga teg sa kaw. yow loo jiital. de <laughs> silencement bu bënn xanaa xamoo jiital Sénégal amul problème ñi ci biir on on ne prend jamais de nous quand on met à l'intérieur. vous eh, on a tous. un truc boo xamante ni bu ko ñëpp gisee yooxu muy ci yi ci biir. vous les hommes. Eh, maa waxal am nga silettement par exemple et tu aimes ça mosoo ko sànni. c'est vrai. Uh-huh. c'est vrai hein est-ce que tu en as. j'en ai mais pas sur moi. pas. j'en ai mais pas sur ah tu l'as pas. mais dans ton armoire quoi tu en as. waaw am na am na coué ou lu yàqu loo xamante ne am naa benn sous-vêtement boo xam ne ça fait dix ans ma am ko dafa xallak yëpp. mais kenn kenn du ko sànni. eh am naa jàllaabi bu frax boo xamante ni moi c'est ce tout temps on a tout ça euh, Babino toi tu en as. waaw bal la mbabal la wala bi ci kaw. est-ce que du caaya caaya yooyu. caaya boo xamante ni bugguloo ko sànni quoi <laughs> mais lu tax loolu Mouhamed Ndiaye. non non kii la man man am naa ci benn t-shirt Sëñ Tuubaa boo xam ne. waaw. xaw ma 2000 la woon xaw ma. nataal day tax yow ah. football. ba léegi mi ngi ci man mais couleur sax dafa changé. si si si xale jigéen yi lu ñu am yow alfi am loo xamante ni farax na yàqu na bënn na mais da nga koo gàdd ba léegi. amoo amoo dosu dosu bukki. dañ koy sol suñu kër dañu am ay po yu ndaw yoo xam ne sa kër ga rek koy sol. ok mais bu yàgg quoi bu yàgg yoo xam ne day dem ba élastique yi day <laughs> alfi yàqu na non Fab yàqu na alfi. nga ne am nga ci benn quoi c'est vrai vas-y Fab kenn déggu la nga ne am nga ci bu. su fees bu bënnate. ouh c'est vrai il y a des habits qu'on adore mais euh, qui doit être vraiment aux poubelles. un pull qui a plus de vingt ans. oui. fóot nañ ko machine machine bi kepp ko mu bën nag yépp mais mi oh, ci man. surtout su ma feebaree laa koy gën a. ndeysaan ay dara sànni bët bët yëpp eh, man am naa ci naa ci mbabal boo xamante ni euh, mooy karo karo yooyu. <laughs> kaso karo yi yi petit sol am naa ci sama yaay boobu rek la bàcc. <laughs> barki Serigne Touba sama yaay boobu rek la mel. naa ko wëndi. xam nga nu ko mag et eh, demain je vous amène ça je vous promets c'est eh, un défi. Eh, suba dama koy wane ci télé nga mel ni jupe tennis. non loolu ñi xam ni boo ko solee rek nga mel ni ko sol jupe tennis. <laughs> loolu la mag ñi di woowee folotan. <laughs> et suba damay indi sama flottant allez on va on va on va vous laisser en compagnie de Mohamed Ndiaye comme ça mu dem ci revue de presse bi ah. pompe rek yow bii nga xew mooy yokk kaaraange bii normalement ku ne war nga ko am sa kër. je te jure bii mooy yokk kaaraange de. Hmm. wallaahi c'est-à-dire ay lakk ak yooyu def ci gaaw de. billaay walaay man rek laa ko téye rek parce que télé bi tam <laughs> la boo waxee lu garaaw rek ba ñu lépp. yaa booy ñu ngi tudd nga xam ni nga leen di tuddee. beneen utilisation bi premier ministre bi xamal loo koy wax de boo jaaree ci turam dëgg ba poppe la. monsieur Dior rek laa bëgg a wax boo jaaree ci too non entier bi ma bës la dafay. waaw d' accord d' accord tu tu loo ci teg ma pompé la a ngeen jëf. ay jokkoon doole waatal pardon maa bettal. jërë ngeen jëf. bi l'observateur Pape. waaw doo puus. ok ngoog observateur ngoog. daanaka euh, yéenekaay yëpp Pape ñoo boo ko tey jii nu ñu xëyee mu di lu aju ci njiitu réew mi Macky ak projet de révision constitution bi nga xam ne doon na ko wax léegi nag bind na ko daal di koy yóbbul waa conseil constitutionnel di ci déglu it waa assemblée nationale yéenekaay bi di l'observateur xëy ci dikk ak ñun daanaka la ca nekk yëpp daal euh, mais li nga xamante ne ji moom moo waral coole mu di wàllu mandat président bi dana ko wàññi am du ko wàññi lañ ci doon wax loolee lépp yéenekaay bi di l'observateur xëy ñu xamal ne kon la Macky Sall bind daal moo di mandat bi dina ko wàññi loolee la bind ci euh, projet de révision constitution bi beneen bi ci topp it mandat bii mu nekk nii da ciy bokk yamu ca ndax li ci constitution bi mooy ku am ñaari mandat yu tegaloo ci bopp réewu Sénégal amatoo droit tegaat ci beneen mandat te it constitution bi kenn mënu ko changé waat après ndax dañ ko vérifié lii mooy li nekk ci euh, boobu la constitution leneen loolu it observateur nee ñu ma nga ca mooy président nee ku ëppal juróom-ñaar fukkeet ak juróom maanaam 75 ans mënatoo présenté moo di Macky Sall ak dogal boobu ne ci course bi mu di ñoo xamante ne ji ay àndandoom lañu te màggat jamono ji mu di Moustapha Niass di Ibrahima Fall di Abdoulaye Bathily di Djiboko ak ñeneen ndax ñoom bu élection di ci réew mi daanaka seen at dafay jege foofu le soleil nañu ak lu mën di xew daal président Macky Sall li mu diggee woon jëm ci mandat bi mu di dana ko def juróomi at jëfe na ko te it nee bi nga xam ne moom lay doxal ni dafay bokk ci mandat cinq bi la bëgg mooy def ko cinq ans bind na ko beneen bi si topp mooy di nee na mandaam bi kon daf cay bokk loolee témoigné moom moo dikk ak ñun ci moomi li mbir laas xëy ko feelu la mu wax mooy lu aju ci euh, assemblée nationale président saisir na leen lu aju ci conseil constitutionnel président saisir na leen léegi daal coow li moom jeex na le débat est clos noonee la ko yéenekaay bi gisee le quotidien xëy ci dellu siwaat ak Macky Sall mi mu ne mi doxal mandat juróomi at euh, jamono ji nag le quotidien nañu ki président di xaar moo di waa conseil constitutionnel enquête su nañu mandat présidentiel Macky persiste et signe pour cinq juróomi maanaam promesse électorale moo ko sonal ba fi mu nekk nii munu ci dellu gannaaw ndax digg na askan wi loo xam ne ñëpp ñu ngi toog si di xaar mu jëfe ko kon bu ci delloo gannaaw gaañi kon danañu ko weddi Macky Sall ci populaire mi ngi yor ab ciseau tiim ab morsom di ko pëti li yëre kaay bëgg a moo di njiitu moom it sol na yëre tayiram tiim constitution bi di ko daggee ca na nga ji noonee la leneen lu neex mi ngi ci populaire foofee ci ni mu ko waxee moom Idrissa Seck coono ak jafe-jafe bi nga xam ne waa banlieue ñu ngi koy dundul mais dafa wutal Macky ak soxnaam tur ndax ba mu demee daf ne damay wër fan la monsieur PSE dëkk ak madame émergence loole Idrissa Seck moom moo ko wax leneen loolu it wax na ko muy lu aju ne ji ngi ko koy jiiñ 74 milliards diggam ak ay kàcc la ay kàcc la ci jamonoy il midi ay kàcc la ci jamonoy Afrique confidence ba fekk jant bi di fay Idrissa Seck ne xaalis boobee ñuy wax ay kàcc lay mës di doon idi mu taxaw di fenn ci lu ne weng loo xamante ne ji kenn nattamlewu ko bàyyi fi li réew mi dund bëgg a détourner nit ñi ci loo xamante ne ji réewum Sénégal mi ngi koy dund ñu dem ci Grand Place Pape fekk fa Khalifa Sall maire bu Dakar moom Khalifa Sall ci xët mu njëkk bi di Grand Place moom moo ca nekk Grand Place voilà Khalifa Sall ngak lu aju ci dixième coordination bu yof euh, bu Grand Yoff kon bi ñu doon daje yéen kaay bi nañu xalifa Sall daal foofee yi dañ ko faa bëgg lool élection présidentielle bu ñu ci àggee parti socialiste dana am candidat am boppam kañ lay doon mu ne bu ñu ci tollee dana ko wax mais li ko leer daal mooy xalifa nee parti socialiste moom du doon mukk parti langaam ak parti yóbbaale pap waaw léegi sarax ma bul dem ngir yàlla ak yonent bi dañuy tàggandoo ñun ñëpp ñu tàggoo en famille c'est mieux moo gën ngay revue de presse rek dem hmm? a rafet lan la ah? yàpp bi ma ndekkee boo lekk boo ndekkee yàpp day des entre les dents sànq laa ko lekk avant kon da ngay xëy nga yow bu dem taxawal. dama bëgg ñu tëjandoo. waaw ma la waaw s'il te plaît nañu tëjandoo. waaw dama lay laaj jot waaw waxal. yow fii nga jógee dem fee di sekkaretu baadu. yow mën ngay wax. ma ngay wax. yow ba 2 heures du matin. waaye léegi ñu tàggatoo bugguma ko woon def sax mais je suis obligé. Ah. yow ba deux heures du matin naa ñëw seen kër suba buñ la gisulee rek maa la. <laughs> Allez, on va finir cette émission tu restes avec nous ah taxawal ak ñun comme ça ñu tàggoondoo ngir yàlla ak yonent bi euh, juste après yeewu leen bi damay ñëwaat àndandoo ak euh, alfi euh, pour yeewu leen plus bi Mao quels sont les projets lan nga naral sénégalais yi. ci 2016. j'ai plein de projets bon malheureusement mënu ma ko mënu ko étaler parce que xam nañu Sénégal. naan mu xam le <laughs> gars yi naa changé ah. Mouhamed Ndiaye daf maa tam mu tiit <laughs> non mu ngi wax ak man ak bëgg de ma la de mu ngi naan ni mu ngi naan waa xam nga projet yu bëriwul quoi teg maa jox date yi fooy nekk ma ñëw <laughs> non non sérieusement après <laughs> man je suis pas seulement dans ci optique def sama album bu bopp rek. ok ok euh, am na ñeneen ñu may joobal album comme hmm. Books tamit léegi mu génn. ok bu seen kumpa Books seen kumpa waaw. et puis nit dof tamit ñu ngi ci beneen projet album et puis maa ngi tamit ci ay projet micro projet yi may def ak yeneen. yeneen ñeneen ñu ma bokkal liggéey bi ay compositeur rek yooyu yëpp puis euh, maa ngi préparé tamit un deuxième album bien sûr mais du nekk léegi moom incha allah ok et quels sont les projets pour euh, Papino je pense que moom euh, gars yi découvrir nañ ko il a beaucoup de talent waaw ouais, ouais, donc li ñu doon li ñuy def déjà mooy promotion clip bu ñëwaat bu ñu defoon ak Get Down ak Get Down bi. Mm-hmm. donc am nañ tamit projet mixtape boo xamante ni bëgg nañ ko teg pour Sénégal bi worldwide ñëpp gën a xam job bi ñu gën a xam Papillon. ok voilà donc ñun dañuy jeexal yeewu leen Mouhamed Ndiaye. juste une question une question pour Mao su ma juum moom moo nekk ci affaire projet RFI musique truc autre là. oui c'est pas c'est euh, euh, partie des nominés. troisième sur quatorze. parce que gars yi déggul après fan la mu déggoo. oui après moi j'ai compris ko deux ci ñaari été le meilleur parmi nominés yëpp ah wallaahi. ah merci waay ah oui ah, bon après j'ai amin waay. Euh, j'ai compris que barki yàlla peut-être ñoom bëgguñu ko woon jox chaque mu tombé daaw ñu jox ko Sénégal. ren ñu joxaat ko Sénégal xam naa dañoo bëggoon yaatal affaire yi mais ñi bokkoon ci compét compétition bi yëpp il était le ah. Ah est-ce que est am na possibilité présenté wa bah je pense que du ma présenté wu waat déwén. Mhm. et euh, bon maa ngi aspiré ci yeneen peut-être concours yeneen. Euh, <coughs> yeneen yeneen horizon quoi. ok parce boobu jàll na. ok dañ ciy sant yàlla rek. d'accord léegi damay jeexal ak question bi. parce que yeewu leen jeex balaa nit yi di fàttali. le 30 janvier centre culturel français de Dakar. le 30 janvier. 30 janvier. oui 21h pile ñu démarré. c'est mooy CCF ah. voilà centre culturel Léo Léopold Sédar Senghor xaw ma. institut français lépp centre français mooy institut français bu nekk bi. ban nga wax ban centre culturel. français. mooy Léopold Sédar Senghor centre culturel français. oui mooy institut français Léopold Sédar Senghor. Ah, moom si. ben oui. eh pour qui je prends ce gars. mets tes lunettes. mais non non centre culturel français c'était ça. jeexal ak benn affaire yéen ñëpp dama leen di ñaan ngeen noppi moom rek laa koy poser comme question bu ko trouver ma may ko lii c' est une photo que je te montre tu regardes la photo boo ko xam ba wax boo xamee kan la wax ma ko. d'accord ma may la lii wax bu leen tontu de ay ca kii kan la. <laughs> kii kan la yow. s'il te plaît tu réponds. mais c'est quoi ça. Eh, xool ko bu baax. regarde ay dara kan moo la laaj toi aussi vrai naar nga. mais bu ko ko joxoñ bu ko ko joxoñ bu ko wan ni buuba la quand kii du buuba nduur c'est pas buuba. ati lekk la Mao xanaa parce que parce que eh parce que parce que Mao eh Mao xanaa xamoo affaire bii ma yore nii ah normalement ñëpp dañ ko war a am seen kër. te ça coûte pas cher. <laughs> waxal waxal waxal kan. gis na ki ñu ko woon xoolaat ko <laughs> Mohamed Ndiaye loo doon def nii. Mohamed Ndiaye li ba. c'est lui léegi bi da koo xàmme di ko ko joxoon yóbbu leen naar de se rapprocher. ah sur euh, beneen écran bi désolé je pas ah waay waay waay. yow loolu militaire la woon ah, en en fait non bi c'était Patassi mooy fi ñuy forme commando yaa Kédougou. ok donc euh, benn benn formation la woon ak waa ak waa ak waa DIRPA. non non. soldat man na moon soldat de aja maana mais xam nga il faut que ñu yóbbu journaliste yi pour ñu def yenn yi pour xam soldat yi nu ñuy dundee donc loolu moo ñu fa yóbboon ak wàttir pa ah. nekk di déjà euh, ñii kii ci ñëpp ay journaliste la ku góor ki wala ku góor ki adam nga na le Fatou Ndiaye Afia noo ko dundee nag yow formation def naa fa deux mois yoo xam ne sangoo man Pape li njëkk a. loolu la topp nii. omo lañ la jox omo pour nga sangoo. non li njëkk a garaaw wat bi annoncé euh, <laughs> allez photo boobu la ñuy jeexale merci jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye lii fenn rek <laughs> itam ci dëkk bi laa dëkk yow <laughs> merci Mouhamed Maaw ñu ngi lay gërëm bu baax mais même moom benn ok waaw dafa am lu ñuy fóon dañuy dañuy fóon lu bon. source de motivation la. c'est la yamba. buuma moo ñu koy indil mooy chef de gang bi voilà merci coupez ça et mettez ça sur internet on s'en fout l'essentiel est que les matins c'est effectivement ici parce que la télé c'est que. de la télé. voilà merci Faba Thioune ba suba. Dikia <laughs> Beauty euh, off nga baal ma. Dikia euh, Beauty tey ñaari juin rek nga jël moo tax. xam nga date instant bi maa ngi vrëm. ok merci. Dikia <laughs> ah. Beauty mu ngi nekk euh, Victoria Diaw mu ngi nekk Wakam Mag Alfi moom moo jaar si suñu. Ok, je vous ai vu sur Snap hier. Allez, vas-y, Kia. Euh, ah. éviter femme bi. loolu laa bëggoon wax moom mu bañ. man parce que direction de l'urbanisme leen servir dañ leen servir moo tax <laughs> la. Mao <laughs> Mao rek moom moo mujj supporté li ñu ko jox ba da ko da ko da ko da ko xëtti ñaari taf ñëw toog <laughs> mais invité femmes yi xam nañu euh, malheureusement donc on les retrouve peut euh, mercredi matin. merci waaw <laughs> voilà. Fakia vas-y. non non euh, jeudi prochain. voilà uy leen tabac gi daa bëgg ku ko wane. oui vas-y Ndeye Bisou oui on te retrouve demain. kii nëbbul wane demain merci au salon Sublime Sophie xool ba ci nee na du ndeysaan tey ñett la ci jël moom <laughs> Papino merci toi aussi Sophia et euh, pour la tenue voilà. voilà moi je vous retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de Yeewu Leen Bisu Peew te dañoo del lu bëri à tout à l'heure